nawir janaani safi amaani wasid baraa'i asalaamualeykum yéen mbokki jullit yi rawatina mbokk talib yi teewlu seen télévision bii di xasaay TV di la première chaîne sémantique sur les xasaay santaat nañ suñu borom subhanahu wa taala di julli si sayduna muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey siyaara saa su nekk xalifa Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu tànn di ko ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmm xalifa maam Cheikh noonee lañ koy ñaanal njaboot Serigne Touba ak Serafal mbooleem kilifa diine yi ak mboolem kilifa aada yi mbokk taaliba yi dañuy dellu soit seen deuxième numéro émission mbégum xasida yi ginnaaw démb ba mu doonee seen premier numéro ñu jagee leen ko li nga xam ne moo nekkoon màggalu xasida yi gi ñu génn di samedi le 23 gi wees te dañoo fas yéene ànd ak si 100 cent animation xam naa li ñuy tàmbalee dañuy daal di bàyyi waa Régis rek incha allah ñu daal di dem ànd ñu benn daaj ci waayu tarxiya buñ dellu si rek. ñu daal di yooyaliwaat wante daaj bi ñu ngi siy bégal suñu jëriñ sëñ Abdoulahi Ndoye mi nga xamante ne suñu wëlëre suñu mbokkum taalibe la ak tamit eh, Serigne Jibi lii mi nga xamante ne istarxe daal xuus la bokk ak Serigne Moussa Thiam mi nga xamante ne mooy sama technicien nekk si régie bi ak mboolem ñi nga xam ñoo bokk ci liggéey Xasaay TV yëpp ñoom sëñ Jibi deel ak ñëpp waa régie bu ñu noppee rek ñu daal di dem ànd ñu benn daaj incha allah dellu siwaat jërë ngeen jëf na jërëjëf Serigne Moussa Thiam si daaj bu neex bi nga xamante ne euh, waa daar Hizbut-Tarqiyyah ñoo ko amal mbokk taalibe yi nii lañu fas yéene ànd ak génn si seen émission mbégum xaside yi mbégum xaside yi nag bégal leen moo ko tax a jóg comme ni leen ko waxoon démb si première émission mbégum xaside yi di amaan mbégte saa nekk di ziar sama mbokk taalibe yi nga xam ñoo bokk toolub Sëñ Tuubaa bi di ko bay di nuyu kenn si man ki nga xamante ne mooy sama lépp di Serigne Ndiaga Diop Baye Fall maa ngi koy siyaar di ko nuyu di ko ñaanal di ko xamal ni li nga xamante ne mooy waaj a ñëw mooy daaj bi nga xamante ne waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos moom lañu fas yéene leen may léegi léegi maa ngi koy may sama papa Serigne Ndaka Diop Baye Fall di si siyaar bu baax samay wëllëre Serigne Moussa Fall Serigne Abdou mbay ak ñi nga xamante ne ñoo bokk ngank staff Baye Ndaka Diop Baye Fall gépp xam naa wala si bu ñu noppee rek incha allah ñu daal di dem si daaj bi rek daay dikkaat incha allah jërë ngeen حمدا لمنزل الدنا والدائم Hamdan Moussa Thiam Régis jërë ngeen jëf mbaa mbokk taalibe yi mu mel ne am ngeen mbégte ak feex si li nga xamante ne moom ngeen doon teewu léegi di daaju xasida bu neex bi nga xam ne waa Hizbut Tarqiyyah Xudoos ñoo ko amal mbokk taalibe dañuy wéeg yéen xam naa daaj bi di moom dañ koy may kenn si man muy soxna Ndeye Marème Ngom di ko may la famille Ngom ñëpp ku mel ni soxna euh, Marème Ngom soxna Ayda Ngom soxna Astu Ngom ñoom Nguuda ñoom Maas Babacar ak ñëpp ak sama goro bu ndaw na ku ñuy wax sëñ Ablaye moom sama sama sama xayit la xayila waan sama xayit la di ko may bu baax sama doom ji di sëriñ Omar Mbaye ñu ngi ko xooy may bu baax son bi nag xam naa dañu leen détal li nga xamante ne moo di ahlu minan si li nga xamante ne mooy daaj ñu mujjee jàng si màggal gi ndax xam ngeen tey seen émission mbégum xas day def fas yéene ànd ak yéen si exclusivité yi nga xamante ne moo tukkee si diggante màggal ak gàmm waaye si buñ noppee rek incha allah ñu dem animation ak waa ahlu minan dikkaat fii jërë ngeen jëf Amen. la Ah, jërëjëf mbokki taalibe yi day mel ni rek am ngeen mbégte si daaj bu neex bi nga xamante ne waa axlu mi naan ñoo ko doon amal léegi nii xam naa foofu sax dañ fay siyaare fi nga xam moo di sëñ Mor Sall bi nga xamante ne moo leen daaj léegi ak ku mel ni Serigne Modou ku mel ni Serigne Moussa ku mel ne sëriñ Akim ku mel ne sëñ Moussa di siyaar mboolem ëxlu mi naan gépp di siyaar daawur di ko nuyu bu baax a baax di siyaar soxnaam soxnaam Ngom di leen bégee tey di leen ñaanal seen gan bi nga xamante ne am nañ ko jamono yu wees tuddee ko sëriñ Bassirou Mbacke ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax gan gi am ndey ak baay ba màgg toog sa place ndeyam ak baayam bi ñu bi ñu newoon ñu ngi ko koy ñaanal bu baax di siyaar bu baax yeneen mbokk taal bi nga xamante ne ay membre ëxlu mi naan nañu faree fële sa bitim réew ku mel ne sëriñ Abou Tall nekk Touba Allemagne ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaar bu baax ñi nga xamante ne euh, ba tey tamit ay membre Euhlou Minane lañ tamit nekk fële si bitim réew di ñi nga xamante ne amaana bu ñu tàmbalee tudd sax dañuy lim waaye ñu ngi siyaar membre Euhlou Minane gépp mbokk taal bi xam naa dañuy jubluwaat rek si beneen daaju xasida rek ak waa daara nuru daara ñu Touba Rudis lenn rek si euh, li nga xam ne moo di daaj ñu mujjee màggal li ñu mujjee jàng si màggal gi wees ndax xam ngeen ni période màggal saa bu jotee suñu borom day dogal daara yu mag yu bari dañuy def enregistrement génn son yi nga xam ay pré enregistré la soit dañuy dugg studio jàng ko buñ ko jàngee pare mbokk taalibe am say aperçu yi nga xam dinañ xam ah daara bii kat ren daaj bi la jàng moo tax daara yu mag yëpp noonu lañ ko defee te suñ ko defee noonu moom la ñuy jàng màggal ak gàmm ba tax na foofu lañ foofu la ñuy fas yéene ànd ak yéen dégtal leen benn si son exclusivité waa dara Nourou Daayani Touba Rudis maa ngi si siyaara ñëpp di si siyaare sama xarit sama wëllëre Pape Ajuma Jémme ak soxnaam soxna Maguette di siyaare sama yaay soxna Bintu Laari Diop ak sama mag soxna Marème Diaw ak Babacar ak ñëpp waarati bu noppee rek ñu dem si waa Nourou Daayani incha allah dellu si waat jërë ngeen jëf. bu مديم gën ngeen amaat mbégte si daaj bu neex bi nga xamante ne suñu wóolëree suñu xarit suñu jëwriñ Serigne Ba moo ko doon daaj ñu ngi koy nuyu bu baax Serigne Ba di nuyu bu baax Serigne Laxa Cun di nuyu bu baax Serigne Amo Cun di nuyu bu baax Serigne Ahma nga xamante ne moom mooy euh, bokk na si jëwriñu daara nu daara ndax moom ñoo bokk koñ di nuyu bu baax Serigne Xaadim Diop rakkam di nuyu bu baax Serigne Moustapha Serigne Karbala Serigne gasama di nuyu bu baax membre kuréel Nour Daara Ndouise gépp ndax ñoom samay waay lañ te it ñoo bokkoon dëkk benn ñaartali ñu ngi leen siyaar bu baax di leen bégee di leen jaajëfalaat di sàkku rek mbokki taalibe ngeen ñaanal leen te it ngeen ñaanal jànkuwul xasida yi ndax murut moom bi nga xamante ne da ngay bégee kuréelkat yi wala jànkuwul xasida yi saa boo leen ñaanalee rek sa bopp nga ñaanal ndax tool bi benn la ndax xasida ki koy durus ak ki koy jàng ak ki koy teewlu di seen mbégte ñoo yem ndax lépp xasida yi la te it benn loxo moo ko bindee te ay karaamam lu mu réeree karaamam mënul euh, gënul wees li nga xamante ne mooy di xas dem xasi xasidaam mooy karaamatu xattu yadi fi xidmatil mu ayadi wa kaanule bil afyadi allahu muulil karami comme boog loolu rek doy na kiraama waaye lu mu nekk nag kiraama ñun murid yi dañ ko war a gën a jàpp dañ ko war a gën a sàmm gën ko valoriser ndax alxuraan ñun ñëpp ñoo ko bokk jullit yàlla yëpp wax na xasida yi xam na ni murid ñoo gën a féetoo ginnaaw jullit yëpp ñoo ko bokk waaye bu ñu nee xasida rek sa xel day dem si ñun murid yi comme boog nañ ciy nekk di ko jàng ndax xas yi am nay salawaat am nay ñaan am nay tagg kom boog nañ koy jàng di si fasaale ñi nga xamante ne ñooy magum diine yi magum diine yi nag weesul mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul suñu jàmbaar teeg ëllëg di si fasaale jàmbaar dina maam Cheikh Ibra di si fasaale ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon muy maam Cerno borom daaru maam moo jaar magi mag Cheikh ànd sëñ Afia li si fasaal tam ñi nga xam ñoo bokk diine ñoo bokk lislaam Baye Niass Limaamu Laay ay xalifaam mam Maodo Malick ay xalifaam di si fasaale ñëpp di si fasaal tam ñi nga xam ñoo nekk si àdduna bi ak dëkk yi nga xamante ne suñu boom dafa dogal amuñu jàmm ndax xasida yi lu mu amul lu mu amul lu mu mënul amul moom nag wax joo ñoo si des nag ñoo ko war a jëfe jëfee ko nag moo di di si jàng di si ñaanal ñu baax ñi di si ñaan jàmm si réew mi mbokk taalibe yi ba tey rek dañuy wéy si xam naa dañuy si animation gu mujj rek moo di daara euh, matlabu daara tasawur subaan bu Touba cees xam naa foofu moom dañuy dem si araba sëñ May mi nga xamante ne membre la sukkul bi di suñu waay xam naa waa rési bu ñu noppee rek incha allah dañuy daal di dem euh, ak waa daara tasawur subaan bu cees bu ñu si noppee rek dellu si fii si plateau bi jërë ngeen jëf. hadram Aziz Amin jërëjëf mbokk taale yu mu mel ni boobu moo nekkoon daal gu mujj bi leen dégtal seen émission mbégum xasida yi waa Tasawudu Soubane di ay daara di daara bi nga xamante ne ay jàmbaar lañ lool ndax seen prestation Cees lañu fare faree te it Tasawudu Soubane di daara ju yaat ji nga xamante ne suñu boom dafa dogal dañoo am ay cellule fu bari Sénégal wante man cellule gi ma si miin moo di bu Cees bi ak euh, sama gars yi euh, bu Maris mi nga xamante ne ministre Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi koy siyaar di ko nuyu. daara jooju la bokk di siyaar baax seen jëwrin mi nga xamante ne wëlëral si man muy sëñ Moustapha Gueye Touba exposition mi nga xamante ne accréditation Magal Touba yi moo ko yor moom daara jooju la bokk ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaar bu baax Serigne Saliou mi nga xamante ne moom mooy bokk na si ñiy dëbbee si daara Tasawudu Touba ndax moom suñu wëlëral te suñu boom dafa dogal moom lu si bari day yëngu si wàllu rajas ak sëñ Ousmane Diop rajas ñu leen siyaare di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax mbokk taalibe mu doonoon seen émission mbégum xas day di fas yéene ànd ak yéen di bég di leen bégloo di ànd ak génn di bég muy gën a neex ba ajana ni ko sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir wax ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu yàgg loolu daan ak wér di ko ñaanal jàmbaaraj la sëriñ Cheikh Jëm Fall mi nga xamante ne saa bu sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam moo fi sëriñ Tuubaa saa bu soxlaa rek mu jëfee ko ndigal bi kon mbokk ñu ngi sàkk ngeen ñaar ñaari jàmbaar ñaari jàmbaar yooyee ndax xam ngeen ni si sëriñ Tuubaa la woon ak Cheikh Ibra ñëw ci taaw yi ku mel ni Serigne Modou Moustapha Fall ànd ak Serigne Modou Moustapha Mbacke ñu ñëw seen sët yi sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Fall Baye Góor topp ko suñu boobam doog sëñ Mbacke soxna loo borom ndigal topp ko mu dem ba law si yeneen kër yi ndax xam nga ni Baye Fall ñoom nanguwuñu benn yoon kilifteef ñoom njaam gi nga xamante ne maam Serap Fall euh, ñaawoon na ko suñu boobam si diggante beeg suñu joie si njaam googu la ñuy dox ndax yoonu murid daa am ni muy tëddee. ni muy tëddee moom képp ku xool si doxinu Baye Fall rek da nga xam li mooy yoon bi comme boog ñu ngi ñaanal bu baax Serigne seex jëmm ak sëriñ Serigne Mountakha di ñaanal bu baax bunti këri Serigne Touba yëpp bunti këri Serigne Touba yëpp nag buñ ko waxee bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu xalifa Serigne Mor Moustapha Serigne Ahmadul Muxtaar ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér ñu ngi koy ñaanal xalifa Serigne Fallou Serigne Abo Mbacke baraka mi nga xamante ne Baye Fall la ndax yaayam doomu Serigne Mor Moustapha Fall ñu ngi ko koy jaal ndax jamono yi la wà liggéey sëriñ Siri Mbacke xalifa sëriñ Abdoulaye laxaat Mbacke mi nga xamante ni moom mooy jëriñu yoon mi ginnaaw sëriñ Mountakha Mbacke Bachir ñu ngi koy ñaanal sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Mbacke moom seen Abdou Khadre Mbacke ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi ñu ngi koy ñaanal sëriñ Mamour Mbacke Mouxtada mi nga xamante ni mooy xalifa sëriñ Mouxtada mu yàgg fi loolu di ànd ak ñu ngi koy ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke Saliou mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Saliou Mbacke ñu ngi koy ñaanal sëriñ Dame Atta mi nga xamante ne moom mooy xalifa sëriñ Ibrahima Mbacke xaadimu rasul ñu ngi koy ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa ak Serap Taal gépp di siyaare tey jàll te di ko ñaanal muy soxna Xadi Baara bu Kaolack moom euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokkoo leeram te tax ñu su barkeem ndax semaine gi passé la wàcc liggéey ñu ngi ko koy jàll umma islamique yëpp di jàll di ko jàll yoonu murit di ko jàll mbokk taalibe yëpp di ko jàll waa daara fédération mu nawle buniyaan di waa kër sëñ bi faree si diga si njiitaru sëñ Alaaji mbokk taalibe mu doonoon seen émission mbégum xasida yi wasali xabari bi salaami ala nabil Moustapha imaami waqut li yelewo maqaamaati rijaal bila tasasuri basir bi ni jàll jërë ngeen jëf هاجت قصائدي قلوب الحملات لراسي وهي بسر للكملات تاج القصائد